monde euh, moi c'est na la star pour ñi nga xam ne xamuñu ma euh, donc euh, tey nag maa ngi ci onzième édition wu As l'As des As bi nga xam ne vraiment initiative bu baax la parce que dafay daal di permettre mannequin bu nekk daal di am occasion pour défiler donc yéen a ngi dégg nit ñi ni ñuy applaudir mannequin yi pour vous dire que am na ñoo xam ne dañu daal di am talent yu fi nekk donc di ko encourager di ko féliciter également man nag li ma gën a neex ci euh, édition euh, numéro onze bi euh, mooy le fait que mu daal di ko dédié ki nga xam ne moo nekkoon également suñu frère suñu xarit suñu partenaire muy Jean-Paul Dameda ñu bëri nag xam nañ ko donc mu génnoon àddina le donc euh, gis neen ne carrément acteur la woon également mais man mannequin la man personnellement défilé woon naa ak moom lu bëree bari si ay podium mu nekkoon sama xarit personnel euh, bi nga xam ne on a partagé beaucoup de choses ensemble tey nekk anniversaire am euh, donc li nga xam ne mooy as jël rek li nga xam ne mooy événement wam bi daal di ko ko dédié mu nekk lu rafet a rafet donc béy di nee na ma xanaa télévision bi moo ma nangu ba gisatuñ ma si podium yi Euh, donc dafay am moment yo nga xam ne euh, tu as beaucoup de travail à faire donc surtout bu nekk tu travailles à la télé donc les émissions ça se prépare nga war a préparer ay émissions war a def euh, des émissions matinales tu na plus assez de temps pour euh, yenn truc yi mais mag maa ngi ci cinéma bi maa ngi ci film yi ñu bari xàmmee nañ ma dans la série Ndiabar ak yeneen série yi nga xam ne actuellement ñoo ngi daw euh, donc euh, di leen wax ne c'est un plaisir waa Sénégal ngeen tiimale ma seen micro donc yéen samay confrères ngeen di leen encourager également et di leen wax bonne chance à vous. voilà Siara ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a xam sa présence ici ci événement As Moussa Sam mu nekk onzième édition. Euh, ñu tuddee promo bi JP euh, lan nga ñu wax ci loolu. Euh, déjà A ah, c'est c'est un frère c'est un confrère par rapport dans le milieu mannequinat ba pare mu rendre hommage à JP qui était presque l'ami de tout le monde donc looloo tax ñu gën a mën a déplacer wu pour ñëw waaye. bi ñu tuddee JP nga xam ne yéen a bokkoon ay série lan nga ñu wax ci loolu. c'est une bonne initiative tout parce que rafet na. JP liggéey na tey li nga ko war a rendre hommage et vu que ni ñëpp ci mannequinat bi nañ ko xamee fa la débuté ba yàlla tey dugaluwaat ko ci cinéma bi donc tey bi ñuy organiser lu jëm si défilé walla si mode daf si am wàll. oui profito rek euh, waxaale bu fekkee da nga amoon relation particulière avec JP parce que bokk ngeen série lan nga ñu wax si JP. non JP sama gain la avant série bi on a défilé ensemble c'était un collègue sama gain la on sortit parfois sama gain la am na yenn yi si confidentiel maag moom la non mais rien de <laughs> entre parenthèses quoi y a rien mais sama gaañ la sama frère la sama frère la waaye. dessin bi noo ko dundee. waaw je vais pas revenir sur ça waaye. Ciara gëj nañ la gis depuis je crois série yi mujjee ci yan projet nga nekk ainsi. instant bi je suis euh, dans le projet de Mouniel euh, maa ngi ak samay propre projet am na aussi li ñuy waajal lu rëy benn euh, long métrage. tu vois ak sama frère euh, Nourou donc euh, ñoo ngi si loolu da ngeen ko gis bientôt incha allah. d'accord Sia. ok merci beaucoup merci à vous monsieur ok. hommage à travers cet événement là man dama koy rafetlu donc euh, ma ñëw fi doublement benn bi teewal As mi nga xam ne c'est un frère c'est un ami mais beneen bi aussi ñëw ànd ak moom ci hommage bi nga xam moom lay rendre suñu frère JP. mu jógee fi lu yàggul dara tey nekk anniversaire am. voilà donc c'est important. nga dikkal ñun un petit peu ci say relation ak ki nga xam ne mooy JP mais aussi fan la seen relation commencé yéen waaw JP euh, on se on a partagé a partagé un projet en tout temps au début ah muy dina ma neex parce que saison une bu dina ma neex man bokkoon naa ci. moom moo ngi ci woon moom c'était un acteur principal man ma amoon ci juste des rôles second rôle. fekk boobu voilà ñoo ngi soog a génn si daara yi lëës bi xam ne moo ñu tàggat ñun ci côté technique réalisation et tout mais boobu miinante wuñu woon. mais yàlla def jamonoy dox ba deux mille vingt su ma juumul ñu bokk l'ordre Ninki Nanka suñu relation ci l'ordre Ninki Nanka la gën a amee soudéo donc on a partage ce projet la partagé les tournages partage des moments et bi amitié bi amee naturellement comme on dit JP il ne triche pas. il est naturel et naturellement si si euh, euh, relation bi suude wu ñu dem ba bokk lu bëri di tasee fu bëri di ànd ci lu bëri di sottante xalaat ci lu bëri tamit mais yebeel am suñu diggante boo xamante ni c'est ça qui faisait le charme fu JP daan ñëw bu fekkee jaaman dafay te ñëpp ay yàkkamti parce que xam na ni bu JP jaaman bu ñu tasee mais day am électricité ya y de l'ambiance il y a il y côté fun donc ñu seq relation bu nice tey moo nekk si dëgg ñoo nekk ci fen mais je pense que tey li ñu wax man boo personnellement jàngal na ma lu bëri si àdduna dem li wax l'absent le plus présent c'est JP dem sa ginnaaw bàyyi fi jëf jàng JP jàngal na ma humilité JP jàngal na ma lan mu la artiste war a taxawee maanaam wàcce sa bopp mais ubbi sa bopp ba ñëpp ku ñëw bokk si yow donc euh, maag JP dina diis wax de parce qu'il y beaucoup de choses voilà ba si bi période de ski bi choc bi di am et tout je pense même bi muy tëdd si loolu hôpital mu métti loolu. Mhm. il n'a pas hésité à m'envoyer message bi mu ko liiree li ma yëg boobu maag yàlla rek ñoo ko xam. message bi mu la envoyé lan la woon grand waaw def déjà comme on dit. Mhm. man ak moom clash la toujours. Mhm. si message moom ma naan booy léegi ma jóg du ma jaar si wax jii quoi xam na. ne ma non mais t'inquiète booy xoolal je vais très bien na sa xel dal quoi. et voyez cette force de JP même dans les moments les plus difficiles moo ngi xalaat ay ay nitam. di leen consoler. di leen soulager donc loolu mu nekk lu ma diis lool lool lool ba bi ñuy xëy yàlla def di gën mu metti lool mais ñu koy nangul suñu borom parce que moom mooy dogal quoi waaw. mu nekk choc quand de façon générale sur la culture sénégalaise euh, choc boobu nan nga ko doon dundee d'autant plus mu nekk koo xam ni tutoyé nga ko xam nga ko jot nga am lu bare bari lu ngeen seet. mais dara wees déjà que projet bu may waaj a démarrer nii au mois d'octobre avec euh, Orange JP daf si waroon bokk dañ ci waroon liggéey. avant ça on était ensemble ci beneen projet d'ailleurs boobu sax si ñu ñoroon am le clash bi ñu yàgg rêvé man ak moom boo xam ne dañuy fayet carrément quoi tey mu dem c'est une perte pour la culture parce que jeune la talent la am na lu bëri lu mu waroon apporter la culture sénégalaise mu dem bàyyi fi tey ya commune combien de projets aujourd'hui qui sont orphelins de de JP bëri na donc mais comme on dit li mu fi jëf ñun nañ ciy jël di ko gën a di ko gën di ko gën a fësal et comme on dit il a inscrit son la postérité et JP du ku ñuy fàtte quoi waaw merci. merci beaucoup jaajëf ko ah sérieusement waa ji dafa baax rek kii <laughs> dafa baax rek as wax dëgg yàlla parce que tey si suba rek maa ngi lire benn affaire bi mu defoon doon wax ni JP doon wax ni day bés bi dina ko teewee quoi. waa vois dinoon na bokk si ñëkk a teew. mais yàlla dogal na lu muy doon tamit ngëneel si ñëpp donc voilà euh, tey nekku fi physiquement mais xam naa ni tey jii ni fii yëpp bi yëpp moo fi fees quoi donc sant yàlla di ko rafetlu bu baax a baax. Mm-hmm. Mm. gis nañ keroog entraînement bi vraiment l'émotion avait atteint son paroxysme gis nañ ne nga jël fi yu métti sa relation ak JP est-ce que mën nga si ñëwaat. waaw relation ak JP moom saa waay boo koy wax fi moom euh, dégg naa duñ fi jógee parce que xam naa ne li ma li ma laaloon keroog moo laal ñu bëri euh, bon. taamoo ñu nag di ko di ko di ko fësalee noonu di ko di ko maanaam di ko di ko wanee noonu quoi parce que ndogalu yàlla la mais ak nit fu muy toll si yow am na yoo xam ni moom boo demee ba toll fa rek boo boo booy agir doo ko tey waaw loolu dañ koy dañ koy sante yàlla di si tuub tak di si tuub bu baax a baax parce que peut-être si bëtu nit ñi mun na niroog leneen mais euh, loo xam ne ah, noonu la demee woon te mënuñu si woon dara quoi émotion la woon sante ko yàlla bu baax a baax. man maa ngi tudd Pape Bouba Ndiaye. yaa maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax waaw ñoo ngi si de ma ne ko ñoo ngi si de di ñaan yàlla yàlla moto yooyu lépp waaw euh, si barke Maolana Cheikh Ibrahima Niass incha allah jaajëfatee waa Sénégal bégg naa la parce que bëri na ay acteurs ngay gis ci série bi ginnaaw yàlla barki Serigne Touba moom mii la que day jàpp sa loxo yóbbu ngay laam-laame mu ne la wii ma karaawul xam daa mën a baaba américain la karaawul dina baax man en personne yàgg naa joué ci ay série fu ne mais nit ñu suñu ma xam Marodi ginnaaw yàlla moom mii la série bi ma jëkk a yóbbu Adja Vacances mu woo ma allo bonbon xam nga moom tubaab allo bonbon bon en dafa am benn affaire bu ndaw genre fecc la xam naa mun garaawul mun nga koo gérer ma ne non maximum mu ne non garaawul kaay rek fekk moom garaawul benn danse keesal ma ñëw xalifa laa fekkoon maa ngi fàttali ko mu ne mun nga fecc ma ne dinaa essayer xam naa lu ma xam ñu dem jouer si ba pare gars yi dem monter ko ñu ne noo il faut ñu yokkaat beneen loolu moo waral sama dugg maroodi ak yeneen production te lu ma mës a dugg ana moom mu rëy daf ko ne ah maa ngi lii moo fi samay cachet yëpp la xam Marodi parce que moom moo tax ma dugg du ma gën a gore benn jour ma ne yor naa dara de xaar ma yónnee la ko mu ne non xool def noonu dañ koy ñaanal rek yàlla yàlla mi mën a fay yàlla na ko yàlla fay non xam nga as suñu nawle la tey sama teewaay fii parce que samay rakka yi ñoo fi ne mais as ñoo bokk acteur social di ànd liggéey liggéey bu rafet ñoom ñu jox ma cër walbati wëlbatiwaat ko jël ko tuddee ko dem si yàlla gip ñu bokkat ki créé acteur social donc sant yàlla la ma taxaw fii di samay rek di samay patron gis waaw di sama ñëpp donc damay fier dam koy delloo micro moom mooy borom réew déggal <laughs> béy di maa ngi lay nuyu bu baax waaw nga xam ne tey ki xewle tey doon def euh, tey li ñu organisé ñu ngi ko dugaloon ci groupe bu acteur social comme ñun suñu groupe di actrices sociale yi foofu lañ ko dugal donc euh, ça va tu bien kon tey moom xol bu feex ak xol bu sedd rek lañ fi ñëwee parce que tey lii ñu gis fii yëpp tey ak nit ñi tout saa tey tey lañ ko tuddee JP kii c'est une sœur à moi muy bijou di sama lépp di sama rak sama rak xool sax lay wax voilà yàgg nañu ça des années donc voilà c'est une sœur boo xam ne bu ma xewlee woo ko day bàyyi lépp ñëw donc di ko remercier moom am fayam donc tey journée bi tey euh, soirée bi tey ñi ngi ko tuddee JP muy sunu frère bi génn àdduna ñëpp xam ko di ko ñaanal rek ah personnellement man ñaanal laa koy defal parce que tey nee naa tey JP tey li mu am président sax génn na àdduna te amul li mu am waaw te seede yu rafet seede yu positif lañ koy defal gisuguma kenn ku wax dara lu négatif ci moom ou quelque chose de mal donc duma def lu dul kontaan xol bu sedd et puis di bàyyi sama rakk ji mu sànni si tuuti moom tamit voilà <laughs> voilà alors euh, salaamaaleykum tout le monde euh, man sama wax du si bari juste que Douda mi li mu wax yëpp dëgg la sama grande sœur la sama xarit la sama lépp la kon bu ma woowee war naa bàyyi lépp ñëw voilà surtout que tamit euh, JP mi nga xamante ne moom la ñu tuddee lii ku ko boole ci dara rek il faut man ma ñëw voilà di ko ñaanal yàlla lépp lu mu def ci lu baax si àddina yàlla na ko fekk fi mu tëdd yàlla na ko yàlla taxawu ci lépp lu baaxam li mu def te mu rus bu dee benn nit ci ñëpp ñi ko teewal bësam boobu euh, jéggal ko lépp loo xamante ne def na ko lu mu war a def. voilà euh, di encourager aussi li nga xamante ne moom lañ fi ñëw muy défilé yi xale yi doog a commencé ñu ngi leen di encourager et di ñaanal encore une fois Douda yàlla may la gudd fan ak weer grande sœur li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defaral li nga yéene acteur yi tamit yàlla mottali la sa yéene ci ñoom